balaa ñuy ñëw dana am ay leeral yu ñu def incha allah wax ne bu njëkk dañ daan def ko am gént da ngay def audio whatsapp envoyé 500 capturer message transfert bi envoyé ko fan yëpp maa ngi doon wax ne loolu dañuy wàcc ci arrêté ko li tax mooy defe naa li ëpp ci li nga ma war a laaj def naa ci vidéo ba pare loo xam ne def naa ci vidéo da dugg ci page bi nga bind ñu jox la ko nga seetaan moo gën a yomb ci yow te doo moo gën a gaaw ci yow te doo ci fay cinq 500 léegi ñu ngi ñaan bokk yëpp ñu jaar ci yoon yooyu rek li ëpp ci li nga may laaj defe naa bu lépp jafe na loo mu war a laaj ci gént soo dégloo ñaari vidéo ba ñett da nga ci am satisfaction bu xaw leer tuuti kon ñu ngi ñaan bokk yi rek kenn mu bañ a envoyé ti 500. ba ñu xool ba ci kanam ba xam kenn yitam ba ñu envoyé ti audio ñu dem ci page bi seetaan ci yëpp am na nag beneen page boo xam ne ubbi nañ ko beneen page YouTube la boo xam ne français lay doon sabab bi mooy dañu am ay ci suñuy commentaire ñoo xam ne dañu wax ne dañuy soxla ñu defal leen interprétation yu vidéo yi en français dañu ubbi beneen page YouTube page boobu nag dana continuer di fay transfert yi dana continuer foofu mais loolu pour ñu déggul wolof ñoo ko tax a jóg ñooñu nag li ñuy fay du cinq cent c'est deux mille francs koo xam ne rek yaa fa dugg sa bopp <laughs> voilà nga dem ci fi ngay déggee wolof nga xool seetaan ko moo gën a yomb daal waaye ñu ngi ñaan bokk yëpp ñu baal ñu rek ñu sàmmonte ak liggéey bi ci noonu liggéey bu nekk dafa am yoon am ci ordre ak ay ak discipline yu muy tegu bunt bi ñu indi tey mooy waxoon naa ne tàmbil nañ benn silsila ci wàllu mariage def naa ci benn vidéo bu yàggul li ngay njëkk a jàpp mooy danga gént di ki lay marié mooy sa borom kër gi ngay sëyal wala ki ngay marié mooy sa soxna si nga am wala ki lay marié mooy ki nga xam ne moom nga yaakaar mu takk la ba kàddu ngoro taxaw seen diggante wala nga gént di takk koo xam ne ngoro saxoo na ci seen diggante loolu mooy bunt bi ki may njëkkee mooy jigéen boo xam ne célibataire nga amaguloo boroom kër da nga gént ñu lay takk ki lay takk du ki lay bëgganteel maanaam am nga ku lay labat ba nga nekk ak moom waaye nga gént keneen ku dul moom di la takk loolu nga gént bu amee ay way ak i tëgg moom wax naa ko ci vidéo yu dul jeex kooku pare naa ci bii gént nga ñu lay takk amul dara waaye ki lay takk du ki nga bëgg xam nga ko walla xamoo ko dem naa ci vidéo bi bu dee xamoo ko mais kii am na góor goo xam ne kii diw la moo lay takk waaye nekkul ki ngay bëgganteel lan lay firi nga ñu ne baax na dafay firi stabilité dafay firi dal di firi yomb yomb ci say mbir waaye ci charte charte bi mooy nga mu nekk nit koo xam ne shakluha shakluhu jamil maanaam mu am forme bu normal comme nit maanaam nekkul nit koo xam ne tànk yi boo ko xoolee dafa am tànk yu dul tànk nit wala melokaanu nit ki raglu lool ba boo xoolee tiit bu ci loolu amul baax baax na maanaam bu dee lool da ci am kon baaxul li ngay jàkk jàpp contraire li ma la wax moom lay firi la bu dee normal na nekk nit ku normal amul sikk waxuma sikk ci laago sikk ci nit ki tànku nit ni mu war a mel moom tànkam mel noonu daa joxe tànku fas par exemple wala kanamam boo ko gisee dangay tiit baaxul bu dee lool loolu amu ci kon baax na ci gént defe naa boobu leer na jigéen nga di sëy ki lay takk du ki ngay bëgganteel keneen la yoon wi jaar na nekk na nit amul benn jafe-jafe ci melokaan wala yu mel noonu nga ne man de gént naa ki may takk nag mooy ki may bëgganteel wala man ki ma gént di ko takk mooy ki nga xam ne moom laay bëgg xaayida bu njëkk yi maanaam règle bu njëkk bi day yóbbaale góor góor di gént di takk soxna soxna si nekkul ki ngay takk règle bi ma la jox ci jigéen moom nga moo la yóbbaale dégg nga même règle bi yéen a ko bokkaat danga gént di takk soxna ki ngay takk mooy ki nga xam ne yow moom nga bëgg wala da nga gént ñu lay takk ki lay takk mooy ki lay labat ci biir gént baax na ci gént dafay firi xéewal ak wërsëg loolu lay firi ci gént dana firi xéewal dana firi wërsëg dana firi atteindre sa objectif surtout ci ku góor gi baax na kon jigéen amuloo jëkkër danga gént ñu lay maye nga bañ dañ lay takk nga nga bañ ya d'accordoo ci takk gi moo xam ki lay bëgg la moo xam du ki lay bëgg ku mën a doon moo xam koo xam la moo xam koo xamul ku mën a doon baaxul lan lay firi dafay firi ay stress day firi ay njàqare day firi ay xat-xat baaxul ci gént dana firi léeg-léeg yow ku ku jigéen ki nekk nga koo xam ne doo amuloo benn ambition ci sa bopp ci sa amuloo ambition ci gàttal wala dana firi léeg nga nekk nit koo xam ne yaa ngi jëf loo xam ne sa famille d'accord ci ba ay ay déggoo du yomb seen diggante yii dana ko firi ci jigéen kon pare naa ci célibataire bu jigéen ak góor ki ci yim ko yóbbaale jigéen boo xam ne am nga soxna yaa ngi ci am nga boroom kër nga baal ma yaa ngi ci néegu say am jëkkër danga gént lan sa jëkkër ji ngay sëyal mu di la takkaat ci biir gént lan lay firi day firi tolof tolof ki xat-xat ak njàqare yuy dañ ci sa néegu sëy maanaam bu doon sa sëy daa bari problème day firi problème ya dafay jeex bu dee dalaa fekkoon ci feebar day firi wér ci feebar bu doon daa fekk sa borom kër feebar day firi day wér baax na ci gént danga gént nag ci lay takk du sa borom kër waaye keneen la koo xam ne xamoo ko mu nekk rajul garib maanaam nit koo xam ne daal nekk na nit koo xam nit ku yéeme la ci taar wala mu nekk nit koo xam nit ku yéeme la ba maanaam nit ku yéeme gan gu yéeme boo gisee daal mu nekk ku lay takk wala mu nekk kilifa diine nekkul sa borom kër day firi njàq rek xat-xat yuy dañ ci sa néegu sëy am na beneen xaayda danaa ci ñëw ci vidéo bi ci topp jigéen yaa ngi ci sëy da gént sa borom kër di takk beneen soxna maanaam di takk ñaareel wala ñetteel maanaam bu fekkee am na ñaar bu pare mi ngi takkaat beneen soxna daal ci biir gént soxna si nga gis ko mu nekk soxna su rafet lan lay firi day firi wërsëg ci yow wërsëg ci sa boroom kër day firi mucc ci lor day firi tolof-tolof yu jeex léeg dana firi tukki ci sa borom kër walla mu firi palaasu liggéeyukaay bu baax ci yow walla ci sa jëkkër baax na ci gént jigéen ji doon sëy sëy ba tas sëy nga ba tas nga gént ki la doon takk ki nga doon sëyal mu lay takkaat sëy nga ba divorce sa jëkkër ji nga divorceel nga gént moom moo lay takkaat ci jigéen lan lay firi baaxul ci gént day firi jafe-jafe ak i problème loolu benn ñenn ci borom xam-xam bi ñoo ko wax waaye ñenn ñi dañ ne déedéet maanaam kon wax ju ñu wuute la dañ ne déedéet firiwu lool day firi beneen borom kër gu bees ku bokkul ak ki nga doon seel lu ci mën a am ñi ñu ko jëlee ñoom ñëpp ñoo ñu raw ci xam-xam moo tax mënuñu leen àttee alaa kulli xaal yii lañ ci wax Euh, góor danga gént di takkaat sa soxna si nga xam ne sa soxna bopp la nga gént di ko takkaat kon pare naa ci jigéen ji divorce pare naa ci jigéen ji am am borom kër am nga soxna mooy sa soxna nga gént di ko takkaat ndax baax na baaxul ñu la nu mel ndax gis nga ne yaa ngi firi eh, yaa ngi bëgg yaa ngi ci jàmm amuloo benn difficulté nga ne waaw ñu ne kon baax na lool ci gént baax na lool jigéen dana firi texe dana firi xéewal dana firi tolof-tolof yu dañ nga ne déedéet sentir naa daal man ci ay problème yu rëy ci fitna laa ko takk ci ay njàqare ñun la baaxul day firi jafe-jafe ak i xat-xat surtout ci biir sëy bi jigéen doon nga sëy ba tas bii dama ko tëboon nga gént beneen góor di la takk boo xam ne bokkul ak ci nga doon sëyal bokkul ak ci nga doon sëyal waaye xam ne kii diw la moo lay takk day firi mbir mu am solo mu am njëriñ boo xam ne mën naa jóge ci kooku ñëw ci maanaam nit kooku dana nekk ku la amal njariñ jigéen doon nga yaa ngi ci sëy mais da ngaa ëmb jigéen ji ëmb nga gént beneen góor di la takk ku bokkul ak sa jëkkër nga xam ko baax na jigéen day firi kooku ku la amal njëriñ lay doon ci charte ci charte mu bañ a nekk koo xam ne dangeen doon bëggante avant ngay dugg ci néegu sëy kooku baaxul day firi tolof tolof ci sëy bi nga nekk kooku jigéen ñëpp ñoo ko bokk nga ne am na ku may takk sax man jigéen ji ëmb du sama jëkkër waaye koo xaw ma ko ñun la xéewal la jigéen ji ëmb gént sa jëkkër di takk beneen soxna defe naa wax naa ko ca kaw jigéen ji say génn sa jëkkër di takk beneen soxna waaye kii dalaa fekk nga ëmb nag baax na ci gént day firi alal day firi mucc ala kulli xaalin vidéo baa ngi noonu ñu ngi leen di ñaan ngeen abonné partagé te jaar ci yoon yi nga xam ne moom laa ko am gént wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.